Bienvenue dans votre maison de production. GP, Gabon Production, Académie Médan TV, les dans les besoins de la population sénégalaise. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare ci bis bu màgg bi ñu nekk waaye ci weeru tedd bi ñu nekk muy weeru rajab di weer woo xam ne weeru màgg la ci lislaam di weeru tedd ci lislaam ngir xew-xew yu bari yoo xam ne am na ci waaye dayo bu rëy boo xam ne am na ko ci biir lislaam rek ndax xam ngeen li ñu woowee al ashhurul xurumu euh, di weer yoo xam ne dañ leen a tànn ci biir weer yi weeru rajab bi ñu nekk benn la ci boobu di weeru bari ngeneel di weeru bari tuyaaba bëri loolu ay xew-xew yu ci am ci biir lislaam it ndax xam ngeen li gën a rëy ci diine ji muy muy julli eh, bëri na lool ci borom xam-xam ñu jàpp ne ci weer wi la ñëwee woon waaye ci fan yi ñu toll sax ci la ñëwee woon muy kasu rajab muy ñaar fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab eh, kon loolu jox na ko daay bu mag ci biir lislaam bu ñu ñëwee fii ci biir yoonu murit it am na fi wàcc wàccuwaay bu mag mu am solo bu mu fi am ngir xew-xew yu bare bëri yoo xam ne xew na ci xew na ci ci dund ku baax ki Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wa arda ba gis ngeen sax ci ay mbindam bëri na may yu mag yu muy junj yoo xam ne day wane ne suñu borom ci weer rajab la ko defal am ci yoo xam ne sax day junj ne ci kasu rajab ci boppam la ko suñu borom defal kon loolu tax na euh, weer wi ginnaaw bi ñu ko bokkee jullit ñëpp suñu bokk jullit yëpp ñun waa kër sëriñ bi it donte jullit ñëpp waa kër sëriñ sax waaye ñi nga xam ne ñoo féetewoo fii ci keppaaram amaan nañ ci beneen cër bu mag a mag euh, cër yu bari yooyu nag bokk na ci feeñ ki nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil feeñ na ko ci feeñ ci jamono ci Daaru Salaam muy dëkk bi nga xam ne moom la sëriñ bi njëkk a sanc sëñ lu doon ku màgg ci diine doon ku màgg ci yoon wi liggéey lu bare bare bari eh, doy na ci rek ñu wax ne yéen yu bari yu sëriñ bi amoon suñu borom def na ci loxoom la sottee bi ci gën a fees di jumaay Tuubaa ju mag ji nga xam ne sëriñ bi bëggoon na ko fu ne eh, daa ci soññee dajale woon sax liñ koy tabaxee bi mu fi nekkee ba ay jamono sax jafe-jafe taxoon na am ñu ci commencé dengi dengi moo leen leen nag jumaa ji moom suñu borom wan na ko ba ma teg ci Euh, kon na ngeen ci góorgóorlu te xam dina sotti jumaa jooju nag ci loxo yi Cheikh Mamadou Fadil ci la sottee ginnaaw nga xamee ne Cheikh Mamadou Moustapha tàmbali na ko ak njaboot gépp ñu ànd ko njaboot gi ba am sotti xam ne Sëñ Fall defal na ko yoon ak yu dul yooyu yu mu fi def taxaw njaboot gi ci njàng taxaw Touba ba nga xam ne nu mu mën a mel tey ba ñuy wax Touba na ci rôle kon loolu lépp tax na euh, bis bi doon lu rëy rëy loo xam ne jullit bu ne rek fu mu ne mën na faa taxaw di ko woote te kenn du laaj lu tax mu am leneen lu ci dolli ko mooy Cheikh Mouhamadou Lamine baaram mi nga xam ne eh, mooy ñaareelu xalifa Sëñ Fàllu eh, te nekkoon juróom-benn xalifa bu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu warda moom it ñu koy fàttalikuwaale ci bis bi mu doon ku màgg doon ku ku ku solo koo xam ne marqué na lool eh, jamonoom marqué na lool jamonoom ci ay jëfam yu rëy ci yéenam ju rafet ci ay taxawaayam yu am solo ci njaboot gi ci jullit ñëpp diggante bi mu fu nekk eh, li muy néew néew amut kenn koo xam ne rek waat nga ay teraangaam ci taxawaayam ci jëfam ci mat kilifaam goo xam ne mat na ko moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara loolu nag du bett kenn ko xam fu mu fi mu bokk ndegam Cheikh Mouhamadul Fadil mooy waajuram sëñ Fall di ma Cheikh Khadim radiyallahu anhu di maamam loolu bu melee noonu it eh, du bett kenn kon buñ koy fàttaliku tey jii moom it day kon nuur naa la nuur rek di leer yu bari yoo xam ne daje na ci ci bis bi kon xewal la goo xam ne bokk nañ ko julli ñëpp euh, ndax mooy weer wi nga xam ne ci la euh, julli ñëwee woon ci la Yonent salaam rañaane woon ci jamono joo xam ne nekkoon na ci ay xat-xat lool moom Yonent salaam te jóge ci at moom ñu doon amal xusni ndax ñu ko jege woon lool daa ko jàppale ci woote bi suñu borom defal nañu génn àdduna ak jafe-jafe yu mu doon dund suñu borom woo ko donte yàgg na koo yónnee lu ne waaye bi mu ko soxlaa ci julli moom da ko wool boppam ba mu ñëw mu jox ko mu indi ko euh, kon loolu tax na mu rëy lool ci lislaam rëy ci yoon wi Euh, tey jii nag ñu koy fàttaliku nii euh, di ci ñaanal sëñ Fallou di ci ñaanal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñu nekk nii ci kër suñu mbokk suñu xarit di suñu mag di sëñ Bamba sëñ sëñ Cheikh Bamba moom sëñ Alaaji Bara di nit ku baax di nit ku yiw di nit koo xam ne ku mat a jàppale ndax ay jëfam yu baax ku fi ñëw fii rek tey euh, jëfam moo la fi indi jikkoom moo la fi indi ci mbaaxam ci yiweem ci mën a jaxasoo ak ñëpp te xam ngeen ne taxawal ay bis yu mel nii di ci ñaanal sa waajur am na solo loolu ndax yonent bi salaam dafa waxoon ne doomu aadama bu fi jógee rek bu faatoo rek ay mbiram dog na ba des ci ñett ñett yooyu boole na ci mu ba fi mu ba fi doom ji ko ñaanal wala din saalihin yad'u lahu mu ba fi doom ji ko ñaanal ñaanal ko nag mooy lii taxawal ko bis di ko fàttali ko fàttali ko ay jikkoom ñu di ci jàngat joxe ay ñam jokk ci ak mbokk bëri na lool tey ñu fi daje ñoo xam ne gëj nañoo gisee lool tey bu lu woon ak daje bii ñu daje mën nañoo bañ a baña a gisee Euh, kon tuyaaba yu bari daje na ci ci ay jokkoog mbokk ak ñaan geeg yooyu yëpp kon loolu mooy li nga xam ne rek moo ñu fi dajale muy kon bis bu màgg bis bu rëy boo xam ne rek euh, jullit ñëpp ko bokk dañuy wax rek ne al aqrabu awla lu gën a jege gën a yey waaye sëñ Fallou ñëpp ko bokk ñëpp ko mën a wooteel ñëpp ko mën a mën a mën a fàttaliku donte kenn fàttiwu ko ñu ñaan suñu borom taas ñu ci barkeem muy bis yoo xam ne nag bu yu mel nii ñëwee rek liñ ci war a jàngate mooy jikko yu baax yi nga xam ne ñooñu amoon nañ ko euh, sëñ Fallou nag li ñuy jàngee ci ay jikkoom bokk na ci ci gën a fees mooy ñeme ay défi yu yu yu kawe waaw maanaam am détermination am abnégation am am am am am ak dëgër ci xam li la tax a jóg te nga dox rek jëm ca nag ndax euh, jëlee na xilaafa gi ci jamono ju mett ci contexte boo xam ne géopolitique bi fi mu fekkoon fi mu ko fekk xawoon na xawoon na bu amutoon détermination dëgg rek mën na am ay jafe-jafe lool waaye mu sax ci loolu rek waaye dinañ jàng ci ay jikkoom it mën a muñ mën a jëflante ak ñëpp waaye xam euh, limite yi nekk ci diggante jëflante sa morom gis nañ ñoom jëflanteel ci ay murit ñoom jëflanteel ci ay jullit ñu dul ay murit gis ñoom jëflanteel ci ñoo xam duñ sax ay jullit waaye ku ci ne euh, wala xad karam naa gisul borom nga xam ne euh, wala xad karam naa ko nga xam doomu aadama yëpp dugg nañ ci ku ci nekk mi ngi koy sàmm sa diggante ak moom maanaam loolu sëriñ bi di wax ci lenn ci ay mbindam naan euh, waraaxi fi ci moom àq suñ borom dina ci moom waaw rek lu ne ci mbindeef dee ci àq sa dee ci sàmm àq jooju loolu nag suñ fàll daana ko bàyyi xel ci doxin wi gis nga ku ne jëflante nag moom waaye ku ne rek amut kenn koo xam ne danañ ko tudd rek ba gis ne sëñ Fallou doxee na ci ci limite loo xam ne euh, danañ ne en tant que kilifa wala en tant que jullit waroon naa mën a doxee nu nii kon loolu bokk na ci ñu war a jàngatee ci ak dundam ci mën a jëflante xam ne lislaam moo ko teg kon daal euh, ci gàttal kàddu yooyu rek lañ amoon luñ doon yëkkati di sant di gërëm tey ñaan suñu borom defal ñu a wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf